bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum eh, way wii laa def pour teelal sama sëriñ xalifa Cheikh Ibrahim Cheikh Ahmed Tidiane ñas maa ngi wax ci way wi Cheikh Tidiane dalal ci xol yu weex Cheikh Tidiane dalal ci ruu yu feex Cheikh Tidiane dalal ci cër yi jeex ci gëtt yi yoxeyeeg waaraam yi neex ci gan gunaayu wurus ak marjaan bismillah dalal fii ndalu mbambulaan maa la tojal teeñ rey la xabaan ndiraan mi tertu mooy suñu jëwrin man mulaay ku mooy boowal sama làmmiñ ana kuma koy te wëññal man mii mëlëñ may fant di tagg ak a bijji xarnu bi seex tijaani sama booy borom baatin borom jàpp bu dul booy ku doon laaj ci faali ngoy a ngi gañ ku doon laaj ca borom maqaam kii la àqan ku dul kii nel xaala wala kasiraan luy jébbi ci xol focc ci ji boroom bàyyi fi ne tey ci labir téefam bàyyi fi ne tey ci taaruwaayam buy waaraate di neste sekkale réer yi buy baawaan waame leru xol yi sankar mbaa muy kabar nga yéemu kaar yaa yeesal tariqa bi topp say tànki baay yaa baax baay baax maam baax yaay foo ne yaay jàmbaaru baay bi laay fuy nguri di ñab-ñabal ga sax yow ngay jag-jagal ay nit sax man de duma la je baane sa kanam bii belli la wane ak sa jë bii fu mu ne mooy sooxu waliyu nu mu doon gannaar tey fii la ndënd yi di jiin luy jiin njaaga te yow yaa fi xiin njàmbur ajoor bawol siin bépp xet xaasonke manketi naar nduut noon pël wolof séeréer ñag aw sa tubaab ak beer yow rekk lañuy ñuy ñëpp di xaajaan sa baay mi laab te wuutu seex tijaan moo daq seytaane fa arafa marwaan moo sunjuñ seex yi ki ñaan sama ma dàq nasaraan fa paate bajaan sëriñ bi ñaanal ci darajay baay yàlla aw nu ci yoonu baay te teral nu ci kër soppeem baay man maa ngi tudd mu laayul xuuna dëkk maatamulaana woy wii maa ngi ko jagleel sama sëriñ di xaalif Cheikh Ibrahima ñas mi ñëw fii ci jamono bi ci Mauritanie ci ziyaara ñu ñaan yàlla xéewal yu bari ñëw ci suñu réew ak ci ñun